mbokk site internet net bi tv li fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy door rek ci liste électorale yi maanaam daal mënatul nekk candidat ci élection présidentielle ci atum 2024 ginnaaw condamné bi foofa ca suite ba te mbir mu mel nag kii journal bi di l'observateur moo ko xëy fësal rek niki tey ci alxames ji nag boobule décision nga xamante ne nag nañ koy jël rek ki ko jël dafa daal di notifier que ne kii décision bi di parti parti bii di Pastef nag dañ ko daal di dissoudre maanaam daal dañ koo éliminer mënatul bokk ci élection présidentielle yi ba tax na nag kii di maître Abdoulaye Tall daal nay wax nag ci mbir mu nu mel moom la mu daal di rek ci page bi dafay mel ni rek ab théâtre la te mbir mu nu mel nag ki nga xamante ne moom mooy porte-parole bu ex Pastef bi nag da koo daal dëggal wax ne rek radiation bi nga xam ne def def nañ ko opposant bi di Ousmane Sonko ba tey bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne moom mooy maître Abdoulaye Tall Ousmane Sonko nag gisoon na mbir mu nu mel yàgg-yàgg dina ñëw ndax bundu xatal gi nga xamante ne nag doon nañ na amoon na njort bu baax que ne état bu Sénégal yéene du lenn rek lu dul rajee ko mu bañ a bokk ci élection présidentielle ñu dem ba tey rek maître Tall nag la daal di xam ne rek moo di ne nag ba léegi mënul comprendre rek naka lay benn nit dong nag ñu daal di koy condamné par contumace ba noppi arrêté ko mu doon ab prisonnier te nu mel nag daal di koy jël gëmal ko ba noppi rek daal di bind bu baax ngir xamal greffier bi nga xamante ne moom ko daal di condamné woon ginnaaw ab lettre boo xamante ne rek acquiescement la woon ngir objectif bi neen nekkul la mu daal di xam ne rek moo di loi bi dafa wax ne ko nit ki nga xamante ne nag dañuy jàpp ne rek ab prisonnier la waaye bu fekkee dañ koo acquiescé ba noppi rek kii di Sonko nag accusé wuñ ko benn yoon ndax jugement bi dafa dañ koo anéantir te nag lu ci bëri rek am na àq ak sañ-sañ yoo xamante ne rek waroon nañ ko jugé te juge boobu nag jugement boobu lee nag waruloon a xaar ci mbir mu nu mel nag li nga xamante ne nag moom moo ko jiitu woon nag da waroon nañ koo préciser bu baax moom nag la mu daal di xam ne rek moo di nag dafa meex ak ba futt rek dafa li nga xamante ne nag moom ba tey moom maître Abdoulaye Tall ma ngay daal di gëmal ne conseil constitutionnel bi kii di Ousmane Sonko nag seppi gi mu ko seppi rek ci liste électorale yi nag nekk na mbir moo xamante ne nag mbir mu régulier la wante ne bu fekkee dafa éligible ba noppi kon nag nañ xam ne kii di Ousmane Sonko ab électeur la maanaam daal yoon may na ko rek mu voté bu fekkee nag administration bi nga xamante ne nag moom protéger de boobu ngir protégé bu baax li nga xamante moom mooy àq ak yelleef doomu aadama jarale ko nag ci citoyen ne mbir munu mel nag dafay niru ne ab viol dëgg rek lañ def kii di Ousmane Sonko ndax àq ak yelleefam rek ginnaaw bu ñu ko yokkee fi nga xamante ne nag moom mooy ci yooyu lay jëfam nag mbir munu mel nag day daal di wane rek ab post nag war na war a mën a am bureau politique bu ex Pastef bi nag daal di nay dégg nag daal di fas yéene réunir nag xamaguñu heure bi nag wante lenn kese nag moo leen di boole nee nañ nag dinañ dégager bépp stratégie boo xamante ne rek jël nañ ko rek mu nekk mbir moo xamante ne nag mbir mu xel mënul nangu la te dara waralu ko rek lu dul fexe rek ba segg kii di Ousmane Sonko mu bañ a bokk ci jongante présidentielle yi ñoom naka lañ daal di xam ne ab laaj rek moo di rek naka la ñu mën a ràjjee xamante ne nag ci liste électorale bu procédure bi nag concerné na ko wante nag laata concernance boobu di am juridiction bu sénégalais moom nan la ci taxawee ku xam ne mbir mu mel nag di maître Tall moom naka la ne lu mu xam ne waa rek moo di condamnation bi nga xam ne def nañ ko Ousmane Sonko ba noppi nag daal di koy koy ci liste électorale bi moom rebbu nowaal bi dafa gis na rek bu fekkee nag cocoom la doxoon ci diggante mook Adji Sarr la loolu nekkul loo xamante rek mbir mu la ba waral kii nag Ousmane nag ñu war koo mën tere pour mu bokk ci joŋante présidentielle yi ñu del moom nag la mu daal di xam ne rek moo dina buñ ko arrêté tamit ci leneen lañ ko arrêté kon nag yoon lu wax rek bu ji mooy bu fekkee ne coutumance bi dañ ko daal di moom nag la mu daal di tëjee rek moo di obstacle dëgg nag la ci gis ak ñàkk éligibilité bi nga xamante ne def nañ ko kii di président Ousmane Sonko mbir mu nu mel nag sote woon na depuis ko arrêté ba noppi waaye rek nag li mu jur rek mooy volonté bi nga xamante ne nag moom lañ am ba ràjje kii di président Ousmane Sonko mu bañ a ñàkk bokk ci élection présidentielle yi amul benn yoon fukk lu waa wax wala méngowul ak benn yoon loo xamante ne rek texte yi nag daal di nañ koy wax moom nag la mu daal di xam ne rek moo di ne patriote yi nag war nañoo jugaat takkuwaat ba dëgg rek ngir lu tawaat fexe fexe rek ba seen président bi di Ousmane sonk bokk ci jongante yu mbir mu nu mel nag dafa gis ne rek ab dictature bu mag la rek te kenn defu ko rek lu du autorité yi moom nag la mu daal di xam ne rek mooy di ci turu parti bi ak ci turu compte rendu bi nga xamante ne nag ak compte compte bi nga xamante ne rencontre bi dox ci diggante patriote yu Sénégal yëpp di RTS bu Sénégal kii di maître Abinar Ndiaye ak avocat Ousmane Sonko nag ñoo ko daal di fësal ne nag jot na rek ñu takkuwaat ba dëgg rek xeex boobu lee injustice.